إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نغي سال سونو بروم سبحانه وتعالى ñoy koy bak di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom mooy ki ko jagoo dellu siwaat nañ weneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim tey di juróom ñaari fan ci shahru ramadan al mubarak borom bi defaloon ñu tawfiq ñu nekkoon ci saar wi di suratu Saad démb ci ndimbalu sunu borom nu ngi yegsi woon ci laaya yi ñaar fukkeel ci suratu Saad tey ñu war a tàmbale ci laaya yi ñaar fukkeel ak benn ci saar woowale sunu borom di wax ni audu billahi min alsheitan arrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsih بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
laaye jooju li laaye ñaar fukkeel ak juróom-ñeent mooy sunu taxaw bind tey bu ñu àndee ñu fàttaliku démb sunu borom subhanahu wa taala ci sunu bind bi mi ngi ñu doon leeral aslëf ci yonent yàlla bu màgg boobu ñuy wax daawud alayhi salaam boromuk may di boromuk kàttan di boromuk ndimbal sunu borom seede ni moom moo ko dëgëralal nguuram wa shadatna lahu mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaam sunu borom di wéyëg ñun di ñu leeralal aslëf ci dund ak yonent yàlla bu màgg boobu di daawud alayhi salaam ci wa hal ataaka nabahu lxasmi id tasawwaru lmixraab sunu boroom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa hal ataaka ndax dikkee na la nabahu lxasmi xabaarab gaa yooya nga xam ne ñoo jote woon maanaam xabaarab gaa ya jote woon if jamono ba nga xam ni tasawwarul mixraab dañoo tëboon miir bett yonent yàlla daawud alayhi salaam fa muy jaamoo yàlla mixraab barab la woon boo xam ne jaamukaay yàlla ndax xam ngeen fii nu toog nii tombeeg fi ma toog mixraab lañ koy tuddee ci jàkka bu ko defee ñoom dañ doon am barab boo xam ne asruq lay doon soo xam ne dañ koy jagoo di fa dugg ngir di fa joxe seeni jaamu yàlla suñu borom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax dikkal na la comme hal ataaka xadiitu Muusa hal ataaka xadiitu alxaashiya hal ataaka xadiitu dayfi Ibrahima almukramin ila axirihi maanaam loolu suñu borom daf koy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye laaju bëgg koo nettali ndax suñu borom xam na ni yonent bi xamu ko moo tax mu ni ko aslëfa ngi ci nettali yonent yàlla yi maa la koy nettali loola bokk na ci sabab yi mooy ngir nga am loo xam ni mooy gën a dëgëral sa xol gën a dëgëral sa ngëm sunu borom mu ni ko hal ataaka ndax dikkal na la nabaul xas bi xabaarab gaa yooya nga xam ni ñoom ñoo jote woon id jamono ba nga xam ni tasawwarul mixraab dañoo joggi woon miir tëb miir fekk yent yàlla daawuda alayhi salaam fa muy jaamoo yàlla id jamono ba nga xam ni daxalu dañoo dugg ala daawud ci yent yàlla daawud fa fasia minhum daawud daal di tiit ndax dañ koo bett loolu nag muy daawud ak ku dul daawud ci yem maanaam wala fi dañuy leen ni lu la bett ah man la yent yàlla daawud alayhi salaam ñooña dañ koo bett diñ ko bettee nag mu tiit lool ndax bi muy dugg dafa am ay mbir yu xewoon ba mu dugg ca jaamukaay yàlla ba yooyu dinaa ko leeral léegi insha allah waaye ba muy dugg dafa waxoon bu ko kenn fekk foofa mu yabal bëkk néegam ni ko toogal ci bunt bi bu kenn dugg kon kooku xalaatul te ab yonent la buur la ku amoon doole la kenn ñemewu ko woon ñeme ku doy ni mu ni bu fu kenn dugg nga di fi dugg xam nga loolu bu amee mboolem jumtukaay sabab yi tax nga wóolu li ngay def daje su fa nit duggee war daa mën a tiit moo tax bi gaa yi yegg see fa fasia minhum daawud daal di tiit qaalu gaa yi ni ko laa taxaf bul tiit maanaam xool nañ xar kanam xam ni kii kat bett nañ ko ba mu tiit gaa yi ni ko laa taxaf bul tiit duñu ay jinne duñu ay malaaka xasmaani ñaar ñu jote la ñoo xam ni bagaa dafa bew jalgati baaduna kenn ci ñun ala baadin ca kaca des kon faxkum dañoo bëgg nga àtte ñu bil baynana ci suñu diggante bil xaq ci dëgg wala tustit bëgguñu it nga jeng wahdina nga gindi ñu ila sawaa siraat ci la gën a jub gën a baax ku am dëgg ci ñun rek nga jox ko ko laaye ji nag mbokk yi bokk na ci laaye yi ëppam njaxas ci liñ koy waxal ci téereb suñu borom bi xam ngeen ni alquran dafa am ay xissa yoo xam ni xissa yonent yu yàgg yàlla yooye borom xam-xam yi te sax mu fassiru ni duñ ci mucc léeg-léeg dinañ indi ay nettali yoo xam ne nettali yooyee daanaka aw xaslu lay doon sax ci yonent yàlla yi alayhim salaatu wasalaam loola nag jur ñuy amuk tayal ci di ko tudd warees na koo tudd li tax warees na koo tudd su ma ko leeralee aay ji ba noppi di nga xam ni kon c'est c'est normal jaadu na masala mu mel nii ëpp naa romb rek jàll benn rek laa la cay junj pour mu doy la nga xam ne ëpp naa romb jàll masala moo xam ne demewut noona ci téere tafasir yu bari sax mucc ci daanaka ñetti li bii may wax téere tafasir yu bare bare bare ma nga ci tafasir yu bare bare bare ibni kathir mi nga xam ne ci ñi gën a set la tafsir la bokk sax ma nga ca donte moom ba mu ko indee ba nag daf ko dàq wane ni saxu loolu ñuy wax saxu loolu mooy lan mooy aaya jii di hal ataaka nabawul xasmi id tasawaru lmixraab borom xam-xami tafsir dañ cee nettali ay nettali yoo xam ni yooya kat maanaam nettali la yoo xam ni wérut waaye ak doyadal yonent la maanaam lan moo xewoon ba tax ñaar ñooñu daal di ñëw yonent yàlla daawud di leen àtte ginnaaw bu ngeen xamee ne daawud ku amoon xikma la ku mënoon àtte la nee na yonent yàlla daawud alayhi salaam dafa toog benn bis ba mu yàgg ci benn ay riwaayaat yu bari la benn riwaaya bi dani te moo gën a yaatu daawud dafa toog ba mu yàgg mu ni yow sunu borom day dama bëgg nga teg ma natt ma teste sama bopp xool ba xam dinaa nekk muñkat wala déet sunu borom ni ko dinaa la natt ñu toog ay fan sunu borom ni ko weer moo des natt bu yegg si ñu toogaat ay fan sunu borom ni ko semaine moo des natt bu yegg si ñu toogaat ay fan mu ne ko tey jii laa lay teg natt bi ma lay nattu ah bi mu ne ko tey laa lay teg natt bi ma lay nattu ah li gaa yi wax laay nekk li gaa yi wax bi mu ne ko tey laa lay teg natt bi daawud xëy préparé ay jaamu yàlla yi mu war a def jël téere ba mu doon jàng muy ban téere zabuur daal di dugg ca mihrab ba woo bëkk néeg bi ni ko bu kenn dugg fekk si ma tey damay jaamu sama borom bi loolu amee daawud dugg ci biir mihrab bi di jaamu suñ borom mu jekki-jekki ba mu yàgg am bi tax mu am ay laafi or daal di naaw ñëw ni cëpp ci xar kanamam bi ko daawut xoolee gis ni pitax mi rafet na lool daawut bàyyi li muy def di yóotu pitax mi pitax mi ne jokket naawaat dali fële dali ci wetu bunt bi daawut jub fekk ko fa mu nekk di ko waaj a jàpp pitax mi naawaat dal ci kaw bunt bi daawut jug di ko jàpp foofu pitax mi jug dal fu kawe daawut jug di yë yërndu fa kawe rek dal di seen benn gone gu jigéen bu gis baax ba noppi ci biir wanagam muy sang li mu ko séenee ndaw si ku bari woon kawar la mu daal di jël kawar gi làq ko ci yaram wi loolu nag mën naa nekk ndax ñoom dañoo bari kawar ba kawar ba nag di dee ba suuf bi loolu amee daawut daal di gis gone gu jigéen nga bëgg ko mu laajte kii kan mooy jëkkëram ñu ne ko diw mooy jëkkëram daawut daal di jël jëkkër ji ci lañ wax ñoom daal di koy def généralu guerre bi ngir bu demee mu dee pour mu takk jabaram waa ji dem ca xare ba dellu si mucc daawut takkaat beneen xare ni ko demaatal mu dem ñëwaat mucc ca ñetteel bi yoon bi ñu takkee xare nag mu dem dee fa daawut bàyyi ndaw si ba ndaw si eddaw ba mu jeexal mu daal di koy takk bi mu ko takkee suñu borom daal di yabal ñaari malaaka malaaka yi ñëw ci moom moom daawud fekk ko fa muy jaamoo yàlla mooy nabawul xas mi ñaari gaa yi ñaari malaaka yi bi ñu yegsee benn malaaka mi daal ni ko bul tiit ñun ñi dañoo jote kii daa am fukki téeméeri xar yu manqué benn man ma am benn moom mu bëgg ma bàyyi koog sama benn bi loolu mooy lan mooy daawud amoon na lu mat juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent waa ji benn jabaram bee mu bëgg koo takk ci ñoom li ñu wax nangu bennam ba mu mel ni kon ab natt la waaye yàlla na yàlla fay al imaamu zamaxsari rahimahullah moom bi muy tontu wax ji dafa wax wax ju ma neex joo xam ne yàlla na yàlla fay ko ko yiw dani tontu bi rek doy na ci mooy yow mi ko gëm xamal ni askanee nga malaaka yi wax lu dul dëgg ndax malaaka yi nee nañ ko ñun ñaar ñii ay nit lañ yoo xam dañoo xuloo te xuloowuñu mu ne kon waxal nga malaaka yi kon malaaka yi ñu ngi wax lu dul dëgg kon moom bokk na ci li mu doon tontu mu ni kon malaaka yi wax loo nga leen lu dul dëgg ak yeneen tegtal yu bari yoo xam ne day wane ne loolu lu wérut daawuda alayhi salaam am na beneen riwaaye boo xam dafay wax ni ah dafa gis benn xale bu jigéen bëgg ko moom bi daanaka sorentewu waaye nettali yu mel noonu ay mbokk yi amul benn boo xam ne wér na ca lépp dafa baarif yooyu amul wérut bal sax fiihi qadxunil anbiya maanaam xaslu ay yonent yàlla da cee nekk soo delloo ci téere tafasir yi nag mbokk yi da ngay fekk histoire bi tafsir yi ci mucc bariwul am na ci mufassirun yoo xam ne ñoom dañ koo indi ba noppi weddi ko am na ñoo xam ne dañ koo indi ba noppi saxal ko am ñoo xam ne dañ koo indi noppi ca jàll ñooña ñi ko indi wed bo- weddi ko bokk na ca Zamakhshari ah ak ñeneen ñi ko indi dàq ko bokk na ca Ibn Kathir al imaamu Razi bokk al Razi imaamu Razi moom laa doon juju sànq ma wax Zamakhshari imaamu Razi bokk na ci ñi ko indi dàq ko Ibn Kathir tamit bokk na ci ñi ko indi dàq ko Ibn Jarir at-Tabari bokk na ci ñi ko indi nu mu tuddati dàq noppi ca am na yeneen mufassir yoo xam dañ ko indi ba noppi moom daal di koy saxal moom am saxal di wane ne am la ku mel ni al imaamu Zamakhshari mi ma junj sànq imaamu Zamakhshari moom bokk na ci ñi ko andi ba pare saxal ni lu am la te xam ngeen ni imaamu Zamakhshari imaam ju mag la woon li moo lay wax ne maanaam kàmb yu mel nii yi ci daanu bari nañ lool. bu ko defee nettali bi kon ci gàttal su ma la bëggoon tënkal rek pour ñu jàll ba ñu jël suñu waxtu nettali la boo xam ni lu baree baree bari ci mufassir yi nettali nañ ko al imaamul Qurtubi boo demee ci tafsiram da nga ko ca fekk mu nettali ko. وكذلك إمام السيوطي ci tafsiram الدر المنثور nettali bii ma wax ma nga ca وكذلك إمام الحاكم nettali na ko saxal ko sax nag moom ci xadis yi nga xamante ni moo ca rot وكذلك ابن جرير الطبري moom it bokk na ci borom xam-xam yi ko nettali وكذلك yeneen i borom xam-xam yoo xam ne yu nu xam lañ ñu nettali ko seeni tafsir bal sax am ñu ko saxal imaam yi ko dàq nag ku mel ni Aboubacar Ibn al Arabi bokk na ci ñi ko dàq imam al Qadi Iyad bokk na ci ñi wane ne loolu saxul imam Ibn Hazm bokk na ci ñi wane ne saxul imam al Fakhru Razi mooy mu junj sànq nga xam ne wax ju am solo la ca wax bokk na ci ñi ko dàq al imam al Khazin bokk na ci ñi ko dàq wa kadalika borom xam-xam boobu al imam Sayyid Qutb boo demee wax na ci wax ju am solo sax ci tafsiram ji. booba nga xamante ni moom la tuddee fii zilaal alquran ala ayati xaal nettali boobu moom saxut di war a ne yonent yàlla daawud alayhi salaam dafa am jigéen ju mu bëggoon mu yabal borom këram ca àll ba ca geer ba mu faatu fa ngir moom na takk soxnaam dama ne am na ñoo xam ni ci ñun respecté nañ leen respecté gu doy ni bu doon ñoom lañ ko waxal sax ñu weddi ko defe naa noonu la doomu aadama yu simple yi nga xam ne duñu ay yonent respecté nañ ci ñenn ñoo xam ni xam nañ ni ñu jub lañ ñu dëgg ñoo xam ni ku leen waxaloon nettali bii nga weddi ko yow waaw fa kay fa kay yonent bi yàlla fiihi qadxun li nabiyillahi daawud maanaam aw xas la aw saaga la jëme ci yonent yàlla daawud alayhi salaam ndax yonent yàlla daawud ni mu meloon ak dëgëraay gi ko suñu borom saxalal ci jaamu yàlla ak góorgóorlu ba mën a am lu ma téeméeri soxna jàpp naa ni ci wàllu xalaat sax ak am xel ku analyser da nga xam ne loolu nekkut lu am nekkut lu wér yonent yàlla daawuda alayhi salaam maanaam sori na xeeti njaxas yooyu nga xamante ni moom lañ koy waxal bari waa na nag yu ni mel yu ñu koy waxal moom daawud wa kadalika suleyman wa kadalika kullul anbiya yi sax na amul benn yonent booy jël tàmbalee ko ca nuuxin ba ci yonent bi alayhi salatu salaam lu dul ay xuraafaat ay xusaabalaat da nga ko fekk ca la nga xamante ni moom mooy ca dundam waaye nag yàlla tàggat na ay borom yi xam-xam yu mag yoo xam ni dañuy segg yu mel noonu am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Ahmad Isa ak ñeneen ñu dut moom moom bokk na ci téereem téere yi gën a am solo ci yi nga xamante ni dañ koo taalib spécial ci xuraapaat yeeg xusabalaat yeeg israiliyaat yeeg mawduaat yi nga xamante ni moo fees ci kutubu tafsir amul benn qissa bu ci ñëw lu dul leeral nañ la ca borom xam-xam yi wax ci wane ni loolu saxul kon daawuda alayhi salaam mboolem ñi nga xam ne lim naa leen ñu tudd ko ci seeni tafsir ña ko saxal ak ña ko saxalul yépp néew na téere tafsir booy dem te doo ko ca fekk man li ma gën a yéem mooy al allaamatu saadi nga xam ne min akbaril muhaqiqin sax dafa mel ni dafa jéng jëm ci xissa bu mel noonu wallahu aalam ndax la la tax ma wax loolu mooy boo demee ci tafsiram daf ne inna hada aqilahu tisan wa tisuna naajamu ne ay zawja te tekkiwul zawja la shakk tekkiwul zawja naaja naaja la te moom zawja la ko tekki muy ay soxna kon jëmmi baat boobu mu wax boo ko xoolee kon dafay mel ni kon moom maanaam bu saxalul nett li bi jéng na jege ko te ku xam naa set saab yi xam ko ci muhaqiqoon yi ci borom xam-xam yi gën a mag te gën a leeral alquran liggéeyal ko ci xarne bii ñu génn la bokk ci borom xam-xam saawdiya yi la bokk faatu na moo jàngal alam ibn Usaymin ànd ak loolu bu fekkee loola la saxal wala daa am as lëf lu mu ca saxal lu mu ci mën ci doon ab njuumte lay doon ci moom boo xam ni njuumte la bu ñuy suul ci biir géej ak lim jot a baaxawee est-ce que dégg ngeen li ma wax même bu nekkee njuumte la ca moom ab njuumte lay doon boo xam ne dañ ko koy suulal ci biir géej ak lim baaxawee xam ngeen ni boo jëloon ab tib tëmbal ko ci biir géej ban valeur la tib bay amati ndax bariwaayu géej dootu ko amati benn toq deret boo ko jëloon sotti ko ci ndoxum géej bi ndax dana soppi géej ga déedéet loolu mooy wane ne li kulli jawaadin kabwa fasu naaru góor wuy daw lu mu gaaw gaaw gaaw bis dina ñëw du jël bee ndax day fakastal loolu al allaama albani waxoon ca ibni hajar ba ibni xajar ne xadisam booy julli boo amee loo teg sa kanam tegal boo amul loo teg sa kanam rëddal aw rëdd mu ne xadis boobu wér na te xadisam dafa daif te ku xam ibni xajar ci xam-xamu xadis Cheikh Albani ba mu leeralee ba noppi dañu xaw ma ibni xajar ba muy wéral xadis bi da doon nelaw wala déet ba mu yàgg mu ne lii day war ne fasu naaru góor lu mu gaaw gaaw bis dana ñëw di jël bee day fakastam kon xista boobu moom wérut loolu di as ñuy askane daawud ak yonent yàlla nuuxin yonent yàlla luutin yonent yàlla ibrahim ba ci sunu yonente alayhi salatu wasalaam yooyee yëpp am na ci yoo xam ne yu bari wéru kon lan la sunu borom mu ne yonent bi hal ataaka ndax dikkal na la nabaul xasmi mooy xabaarab gaa ya jote woon id jamono ja nga xam ne tasawarul mixraab dañoo tëboon la nga xamante ni moom mooy miir ibni kathir mi tafsir aaya ji dani dakara almufassiruuna ha huna qissatan aktharuha maxuudun min alisrailiyat walam yathbut fiha an almacsuumi xadiithun yajibu itibaacuhu walakin rawa ibni abi xaatim xadiithan laa yasixu sanaduhu liannahu min riwaayati yazid alriqaashi an anas radiyallahu anhu wa yazid wa in kaana min alsaalixiin لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها أو علمها إلى الله تعالى فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا ابن كثير مني borom xam-xami tafsir yi day tudd nañ ab nettali wala ay nettali yu bari yoo xam ne ya ca ëpp wérut ci nettali israiliyaa di la bokk nee na saxul jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dara ndax xam ngeen ni am na ci borom xam-xam ñuy wax ni maanaam yonente bi wax na ca bokk na ca yu mel noona wax ja ñuy wax ne yonente yàlla bi alayhi salaatu wa salaam moom moo wax ni fitna yi daawud de ci jigéen la ko yàlla defoon loola xadis ba wéru daawud su jóot na ñeent fukki fan di jooy ba rangoñi saxum ñax loola xam nga ne xel sax da kaa nangu ba muy nekk lu wér ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koy askanale yonente bi te loolu amut nee na xadis yi ca rot wala ba ca rot gën caa siiw ñi ngi ko jëlee ci Yazid ar-Riqashi mu jëlee ko ci Anas ibni Malik mu ne Yazid ar-Riqashi amul werante ci ni borom xam-xam yu mag yàlla bokkoon waaye ci xam-xamu xadis da caa daif loolu nag kiimaan dëgg la da ngay gis koo xam ni jaamukatu yàlla bu mag la borom xam-xam bu mag la boo ñëwee ci xam-xamu xadis dañ naan dafa daif xam ngeen ni riwaaya bii ñuy jàngee ñun muy riwaaya Hafs ñu ngi ko jëlee ci Aasim ibni abi najud nga xam ni loolu moom ci ay ngëneelam lay bokk insha allah te boo jëlee aasim ibni abi najud dafa daif ci xam-xam xadis loolu moo lay wan ne que nit mën naa jekku fànn gii te du jekku fànn ga ca des nekk borom xam-xam bu mag ci xam-xamu quran te xadis doo ca xam lu bari loolu nag mooy kenn ku ci nekk ak fana suñu borom di def sa àll wa ba neefa wa fawqa kulli di ilmin alim ibni kathir mu ni kon dafa daif ci borom xam-xame xadis yi kon li jaadu mooy nañ jàng alquran yam ca la yàlla yam li suñu borom yam lan la mooy hal ataaka ndax dikkal na la nabaul xasmi nettalib gaa yooyee nga xamante ni ñoo doon jote id jamono ba nga xam tasawarul mihrab dañoo tëboon miir ba fekk daawud ci jaamu kan yàlla id daxalu jamono bañ duggee ala daawuda ci daawud fa fasia minhum daawud daal di tiim ah xoolu gaa yi ni laa taxaf bul tiit xosmaani ñaar nañ ñoo xam ni baga baaduna ala baad li tax xaalu lan moo waral xaalu tam nekk ñaar te waxul qaala xam ne qaala mooy musanna muy ñaar mu ne qaalu parce que kenn ku ci nekk bi ñu ñëw ci daawud daa ànd ak i mbokkam ki tooñ ak kan tooñ ñoom ñëpp dañoo ànd ak seen i mbokk ñëw suñu borom ne qaalu gaa yi ne laa taxaf bul tiit donte ñaar ñaar tëb nag xosmaani baga baaduna ala baad ñaar lañ ñoo xam ni kenn ci ñun dafa jalgati tooñ morom ma faxkum baynana bilxaq na nga nu àtt ci dëgg wala tusqit bul jeng wahdinaa nga gindi ñu ila sawaa sirat ci li gën a baax daawud ni lu xew mu ni ko inna haada kii day axi saa mbokka foofu nag borom xam ñu ne mën naa mbokkum deret la woon ñi ne ama naam dañoo bokkoon dëkk wallahu aalam lahu am na tisun wa tisuuna naaja juróom-ñeent fukki gàtt ak juróom-ñeent waliya man nag am naa naajatun waaxida benn gàtt fa qaala waa ji mu ni akfilniha ñëral ma ko ñëral ma ko mooy jox ma ko jaay ma ko wala booleel ma ko l'essentiel yow nga génn ci àll bi ci sàmmukaay bi man ma deseeg jur gi akfil nii nga bàyyee koog man wa azzani mu not ma fil xitaabi ci wax mu wax ba wër ma loolu la baat biy tekk ci wolof wa azani fi lxitaab mooy mu wax ba wër ma xam nga nit olof bu nee wax ba wër ma rek mooy nit ki wax naa wax a wax a wax ba yey la te fekk lim la yeyee du dëgg gi waaye daf laa yeyee làmmi te loolu lu am la mbokk yi gis nga nit mën naa wax a wax a wax a wax a wax ba yey moroomam te fekk amul dëgg yonent yàlla bi ñaari saxaaba dañoo jot a ñëw ci moom mu ni ngallaawaay fexe leen ngeen wax lu ngeen xam képp koo xam ni wax nga ba wër sa morom. ma gëm ni li nga wax mooy dëgg ma jox la dëgg te fekk amoo dëgg yëgal ni li ma la jox aw daggit laa dagg ca safara jox la ñaata nit ñooy jote mbokk yi kenn ñëw sa waay wax ba wër morom ma sa wa nga xam ni ku dégg dana diwa am dëgg fekk soree naa dëgg fukki lu bëgg yaram neen li ko waral nag mooy xam ne dafa am nit ñoo xam ne ñoo tëlee wax am na koo xam ne fi ne bu la bëggoon a expliquer fi ne benn mbir rek sa waay mën na fay def une heure et quelque am na koo xam ne yàlla da koo mbay ci mën a wax loo xam ne mën naa wax ba wër morom ma sunu borom subhanahu wa taala def ni ndekete inna min al bayaani la sixaan gis nga yonente bi alayhi salatu salaam nee na inna min al bayaani mën a leeral la sixaan dafa mel ni njabar da cay nekk maam nit mën naa leeral leeral goo xam ne na muy leeree day mel ni njabar da caa da caa takk kon yàlla subhanahu wa taala dogal ñoom ñaar ñu daal di ñëw mu ni ko kii de sama mbokk la lagu tisun wa tisuuna naaja mooy am na juróom-ñeent fukki gàtt ak juróom-ñeent waliya naajatun waaxida mu ni man benn gàtt laa am fa qaala mu ni akfilniha bàyyee koog man wa azzani fi lxitaab nee na wax na ba wër ma qaala daawud ni ko laqad zalamaka moo la tooñ ah daawul àtte bi gaaw na de seetlu ngeen mbir mi ni mu dem lu xew ah kenn rek la déglu benn nopp daa dégloo benn nopp daa dégloo benn nopp man nag bi ma defee seetlu xool li ma jot a yër ci ay tafaasir yépp ak wax yan ca wax ñii naan jigéen jaar te loolu xam ngeen wérul ñii naan daa defoon léeg ñii naan daa defoon léeg ñii naan daa defoon lële la gën a dal sama xel wallahu aalam mooy daa juum juum ca dégloo benn parce que siyaqu aaya ji amut leneen lu mu wane lu gën a dëgër lii te leneen lu waay wax ab déggit lay doon waaye lii moom alquran saxal na ko mooy daa déggee benn nopp te ko xam daawud daawud kuy àttee dégloo benn nopp ndax bu ngeen fàttalikoo seen darsa démb bi gis ngeen ni mu meloon ci mën a àtte kon te àttekat ba dégloo benn foo fekk kilifa guy dégloo benn nopp du jub ci njaaxum parce que kilifa du dégloo benn nopp boo ñëwee wax te dafa bokk ci mandargay kilifa bu nit ñëwee kalaame waxa waxa waxa wax ba fuural gémmiñam bul ko jox sax benn yitte benn yitte bul ko ko jox melal ni sax waxul dara fakun ka annaka lam tasma wa lam yaquli la wax kat waykat bi doon wax naan su la yàlla nattoo nit koo xam daa tixit su la yàlla nattoo nit ku tixit te mënul taqali koog moom mu ne fakun ka annaka lam tasma wa lam yaquli bu waxee ba noppi yow melal ni moom waxut wala bu waxee melal ni déggoo kilifa noonu lay def su bañee juum mooy bu la waxee kala wax lu mu garaaw garaaw rawatina jigéen ñi nga xam dañoo gaaw ci jooy mën na ñëw di la kalaame samay taf taf rek jooy jooy jooy gis nga am na màndarga yoo xam ne kilifa bu ko yorut doo jub ci njaaxu gis nga ay sentiment yooyu nit ñëw wax jooy waaw mi ngi nii xoolal sama dagg-dagg bi gis nga ko mi ngi nii sama bëñ bi moo ko wekki affaire yooyu mën na laa jëlal sentiment rek nga gaaw joxe benn àtt déedéet bu wekkee sa bëñ beeg bu démontee sa bopp beeg bu wekkee sa tànk yeeg bu dammee sa yax yeeg yooyu yëpp yow neen tekk rek wala fi ne nañ boo nee tekk rek tekk war la fi ngay jaar da ngay bàyyi ba déglu keneen moo tax léeg-léeg njaaxum yi nga xam ne kilifa da koy def mi ngi aju ci dégloo benn nopp te daawut ku ko xam-xam ngeen du dégloo benn nopp ndax àttekat bu mag la woon alayhi salaam mu ne ko laqad zalamaka moo la tooñ bi suaali naajatika ci laaj gi mu lay laaj sa gàtt ila niaajihi boole ko ci ay gàttam ah wa inna kathiran lu bare bari min alxulataa ci gaa yi faral di bokk maanaam comme ñoom dañoo bokkoon di sàmm dañoo bokk di sàmm waaye ci biir bokk gi yow yaa moom lii maa moom lee mu ni wa inna kathiran lu bare bari min alxulataa ci gaa yi bokk la yabgi dina faral di tooñ di jalgati baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ca la ca des illa alladina amanu ba mu des ñi gëm yàlla wa amilu salihat tey jëf-jëf ju baax wa qalilum ma hum néew na ñu ko ñu ko dul def wa qalilum ma hum mooy néew na ñu ko dul def man néew na ci gaa yi nga xam dañuy bokk lu dul buñ bokkee rek ñenn ña jéem a nax seen morom wala ñu jël àqam wala ñu ila axiri ci yi nga xamante ni bokk da koy faral di waral histoire bi jeex gaa yi daal di génn dem defe naa yéen a ngi fàttaliku ca xisab suratul anbiya ah ca gaa yi ñëwoon doon àttelu ca wàllu mbay ma nu laay jëkk dëdd ci anbiya ah id wa daawuda wa sulaymana id yaxkumaani fi lxarti id nafashat fi ganamu lqawm aaya jàngo tafsiroon nañ damay nettali loolu dooga ñëw ci àtt bi donte waxoon nañ ko ma jaaraat ci ngir li ikmaalil faida léegi benn bis ñaari nit dañoo ñëwoon ci yonent yàlla daawud alayhi salaam di àttelu pour wan la ne daawud àttekat la waaye doom bi suleymaan àttekat la te mu fekk xale la benn waay mu ni kii da doon sàmm bàyyi ay nagam ak xaram ñu dugg sama tool lekk njëmbat ma fa nekkoon yépp ah Souleymane ni ko wax na dëgg mu ne ko waaw wax na dëgg kay yaa ko tooñ mu ne waaw mu ne yow miñ tooñ yow miñ lekk say say say say njëmbat jëlal jur gi yëpp nga dem yaa moom jur gi mu jeex ah yow ko amoon njëmbatul maamam ñu lekkal la njëmbat jox la ca béy ca gë ca gëb gétt kay xam nga ni sa affaire day baax waajee génne moom di sa xool lay daw keneen ki moom ñu ngi génn dëgg la ak juróom la amoon waaye lekk gi ñu lekk tool bi léegi finn bis ni ki tey lay nekk kutus duutul amati dara mu génn bët yi bëtam bët yi bëtam di jooy Souleymane dajeeg ñoom ñu ne waa yéen law la lan la mu nettali ko histoire bi ni ko sabaay moo ñu àtte Souleymane ñu ne ko sabaay daawul moo ñu àtte te nii la defee àtte bi mu ne kaay waa ji mu ne ko kaay yooyu ñëw leen ñu daal di ñëwaat mu ne kaay leen dem ci sama baay ñu dem ba ci moom mu ne ko bàyyi de atte nga ba noppi muy daawud te moom Souleymane xalal te xam naa ni borom xam-xam nga waaye ndax doo may chance may ma jéem a atte xool ba xam ñaari bi ciy gën a jub bàyyi ji ne ko bisimilah atte mu ne ko xam nga nan la ñuy def da ngay jël jur gi jox ko borom tool bi ni ko yoral jur gi fii ba déwén soow muñ ci rat yaa moom doom ju fi juddu yaa moom waaye nag bis buñ la ko laajaatee delloo ko juróom ñu ni yow nag comme daa yaa tooñoon dellul ca tool ba nga jëmbataat ko bis bu jébbee ñu delloo la sa jur defe naa bii baax na ci gaa yi de Souleymane daal di ne ko yow nii nag Daawud ni ko yow nii nag keroog muy sotti ab yonent ngay doon gis na ñu daal di jël àtte boobu ñu daal di bàyyi la ah fa fahamnaaha Souleymane yàlla mu ni man maa may dégg-dégg bi Souleymane ngay daa daa xa jàng bàyyi Suleymaan mu ne mu ne déedéet wa kullan aataynaa xukman wa ilman kenn ku ci nekk jox naa la xam-xam jox la ak may gis nga de loolu mooy àttab suñu borom kon fii daawuda alayhi salaam bi mu àttee loolu ba noppi gaa yi daal di génn ah bi ñu génnee dem daawud daal di xalaat bi mu xalaataatee xam ni kat moom def na njuumte foofu nag soo gisee ma ne la lii laa jàpp ne mooy di gër a dëgër am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne wax nañ ci ay wax ku mel ni al imam bakr ibn ismail rahimahullahu rahmatan wasia ci borom xam-xam yi gën a mag rawatina liggéey na ci xisasul quran téere boo xam ne néew na nga gis téere bu riche noonu moom bakr ismail am na benn téere bu mu taalib tuddee ko xisasul quran boo ci delloo moom bokk na ci lim saxal mooy dani histoire yii ñuy wax yëpp naan jigéen jalaak leer mu ni dara amu ca li am kay la gën a xel gën a jege mooy xam ngeen daawuda alayhi salaam dafa séddale woon semaine bi ñetti xaaj benn xaaj bi da koy jaamu yàlla benn xaaj bi da koy jox waa këram benn xaaj bi da koy génn dem àtte ji te loolu lu wér la waxin moom loolu mu waxam noonu la daawud doon dundee léegi daawuda alayhi salaam natt bi ko suñ borom di natt tax mu dem tëju ji ba nit ñi war a àtte àtte wuñu nit ñi ñëw ca àttewukaay ba am ku leen war a àtte mooy daawut fekkuñ fa daawut mu ne kon loolu njuumte la daawut wërta woon def loolu ndax dafa waroon a toog fa ñuy àtte ndax moom la fa yàlla teg inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi kon ma war a àtte nit ñi kon njuumte boobu mu def bañ a toog ca àttewukaay ba moo juraat beneen njuumte bi gaa yi def ba tëb miiram mu juraat beneen njuumte ba moom mu ciit mu ne njuumte yi bi mu dajee daawut da xam ni moom kat njaaxum gi mu def tey te moo ne njaaxum gi taxut koo rëy lool lool waaye ibni kathir dafa waxoon ju am solo ci tafsiram mu ni borom xam-xam salaf yi daanañ wax ni ah nu mu tëddati xasanaatul axyaar ah xasanaatul waxuma nu mu ko nu mu ko tëggee ci wolof maa ngi koy fàtte maanaam njuumte yi nga xamante nii maanaam yu baax yi nga xamante ni ñun dañ koy faral di jéemantu mën nañ koo jéem ba nag nga dem ci yonent fekki ay juumte lay doon sa ñoom lim la may wax mooy seen ak fooraay day yegg foo xam ni mbir mu jër def njuumte sax ñoom day nekk njuumte ci ñoom kon ci bunt boobu daawuda alayhi salaam ñàkk a toog ca maxkama ba jur na gaa yi amuñ ku leen àtte jur na ñu tëb miiram jural na ko mu tiit kon lii lépp bu defoon la ko war njuumte bi du ko ci fekk moo tax suñu borom mu ni bi loolu amee ah fa zanna wa zanna mu daal di njort daawudu daawud ni annama fatannaahu tey nag fitnaal nañ ko teg nañ ko fitna fitna jii nag moom la suñu borom saxal ndax lii la ndax numturati la war a àtte àttewul la wa ala kullin li gën a jege ci siyaaqu aaya ji mooy daa dégloo benn nopp donte ba it di Bakr ibn Ismaïl wax bu yenu maanaa la ndax it loolu lu am la loolu la def mooy dafa bàyyi attewukaay ba tëju fa nga xamante ni fa lay jaamoo suñu borom te moom moo waroon a atte yi nga xam ñooy jaam ñi foofu rek di nga ci dégg ni kilifa bu ko nit ñi soxlaa warta tëju warta tëju déedéet dëgg la nag min daawin nizaam organisé wu ba di jël ay rendez-vous ci nit ñi loola du yëfee comme ni ko gars yi waxee bala balaa sa xol bay jeex loxo ñu ne yëfi tubaab yëfi tubaab mooy leen kuy tubaab kon kenn daa xam kuy tubaab l'islam lan xam ñun xamun loolu maanaam nit dafa war a organiser wu heure bi mooy heure visite ku ma soxla ñëwal ci heure bii waaye ñun boo waxee loolu ñu ne li dafa tubaabe la ñun ñu ñàkk fayda la maam lu baax rek ñu jox leen ñoom ñoom yéefar yi julit dafa war a am organi mu organiser wu xam ngeen is alquran moo njëkk def loolu añ ba pare naaj wu tàng jër ngay faaxar faaxar naan maa ngi dem seeti ma diw maa ngi dem attaay ji te yëg yëgaloo ko ko islam moo ne la li nga def du noonu julli gee ba nag war a dem tëri tëri ngay faaxar faaxar dem di seeti ni te yëgaloo ko ko defoo li la wax ba ca gën a ji day day day waar nag mooy julli fajar ba noppi rek wala avant julli fajar moo tax salaasu awraat suñu borom ni ñetti heure bi yoo xamante ni du heure visite ginnaaw tisbaar da ngaa war a tëdd sées ginnaaw gee da ngaa war a tëri ndax teel a tëdd mooy sunna gannaaw fajar wala avant fajar day fekk booba ngay doog a yeewu te kuy doog a yeewu ñaaw da ngay aajowoo sa bopp kuy doog a yeewu da ngaa ma yëf yi baan yu bari yoo xam ne bëgg ku ko gis moo tax alquran ci boppam moo njëkk a organisé dund gi ci noonu kon daa jaadu kay bala ngay dem nga ne ko ndax mën na maa ñëw léegi boo ñëwoon ba agsi mu ne eh sa waay heure bi moom dafa koo aajoo sama bopp de nga naan da ngay jaay fulla bu ma fi ñëwatul mu doy yow koy tontoon te alquran ngay tontoon ndax moom li mu def mooy sunna wa ida qiila lakum irji'u bu ne la mënu ma la recevoir demal farji'u suñu borom mu ne demal ak xol bu seet ndax huwa azka lakum loolu moo gën ci yéen waaye ñun koo ko def mu mer ça veut dire que mooy amuñ ak dégg-dégg ci yàggala yàlla ak yonente daawuda alayhi salaam bi mu yëgee def na njuumte fastaghfara rabbahu mu daal di jéggalu yàlla wa xarra mu daal di raakian daal di sujood rukoo day tekki sujood rukoo day tekki sujood sujood day tekki rukoo loolu nag waxinu sharia la léeg-léeg bu fekkee dañ leen a tudd ñoom ñaar rukoo lay rukoo rukoo lay tudd sujood sujood lay tudd yaa ayyuha alladina amanu irkaaw wasjudu kon foofu rukoo rukoo lay tekki sujud sujud lay tekki su dee aaya ju mel nii fa xarra raakian mu daal di rukoo rukoo boobu day tekki sujud léeg-léeg bu ko yonent bi waxee ah irka raka tay ni rukool ñaari rukoo rak raka foofu day tekki rakka du tekki rukoo waaye rakka lay tekki loolu nag mat naa xam ndax léeg-léeg dañuy wax benn baat ci sharia fekk nangam lan ca nam lu gën a yaatu mu ne fa xarra wa xarra mu daal di raakian nekk ku sujud wa anaab mu daal di dellu ci yàlla ndax ku gaawoon laa dellu ci yàlla saa bu juumee ndax suñu borom seedeel na ko ko ah ah mu nekk jaam boo xam ni maanaam delluwaa koon la ci yàlla suñu borom saxalal na ko Ibrahim saxal ko Suleymaan saxal ko ki nga xamante ni mooy Daawud ak yonent ci yàlla yi yi ci des borom bi subhanahu wa taala mu ni wa xarra raakian wa anaab mu daal di rot sujjóot dellu ci yàlla fii nag bokk na ci barab yi sujjóoti alquran laaya ji bokk na ci barab yi sujjóotu alquran li tax sujjóotalu ma ko bi may jàngale nag damaa bëgg a jàngale moo tax sujjóotalu ma ko maanaam laaya ji bokk na ci laay yi nga xam ne ku jàng ba yegg si da ngay sujoot bëgg jëfe ab njàngale mooma teree sujoot njàngale boobu mooy ban balaa njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisul amr ibn al aas ci sunan abi daawud nee na yonent yàlla bi jàngal na ma fukki sujoot ak juróom yu nekk ci alquran alquran fukki sujoot ak juróom mi ngi ci barab bi sujoot la arab la yëf yi tàmbalee jeexee ah jeexee iqra bismi rabbika alladi xalaq ñii ni ñeneen fukk ak juróom ñii ni fukk ak ñeent benn saar dong moo ci boole ñaari sujjóot ci biiram mooy xaj laaraaf am na ak fan raada am na ah teel ngeen a yegg ci xaaju suuf bi de li ngeen ne supp jàll nga xanaa ah nax la am na isra am na mariam am na ah furqaan am na namli am na xajji jël ñaar sajda jël najmi jël ba nga yegsi ci iqra bismi rabbika nga am fukk ak ñeent ci ñi wax ni xajji benn fa nekk fukk ak juróom ci ñi wax ni xajji ñaar a fa nekk loolu moo indi wuute bi daa am borom xam-xam yoo xam ne benn bu xajj lañ reconnaître reconnaître waaye xajj li gën a wér mooy ñaar ñoo fa nekk sujjóot yooyu bokk na ci sunna mooy nit ki buy jàng alquran ba yegg si ca mu rot sujjóot mu rot sujjóot benn saxaaba ñëw na ci yonent bi saa sallam ni ko man de dama doon jàng aw saar ba mu yàgg ma yegg si ci aaye sujjóot ma gis garab gi dal di sujjóot di sàbbaal yàlla garab gi maa ngi ko dégg mi ngi naan yow sunu borom lii may def de yàlla nag ma ko bindal mu nekk aw tiyaaba te nga dencal ma ko ba àllaaxira yonent bi ne ko booba nga waroon a sujjóot te gént nga ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam sujjóot yooyu nag atteem ci alquran waxoon naa ko ci Mariam man ci yeggee sartul nga am jàpp doo koy def boo yorul jàpp di déglu alquran baa nga di ko jàng te sujjóot bi kuy dégloo kuy dégg ñëpp ci bokk yam yaay jàng alquran wala daam ko koy jàng yépp ci bokk yam bu yegsee ci barabu sujjóot mën ngaa sujjóot benn ngoo ñaareel mooy sujjóot la bu jërul allahu akbar nga di ko wax doog a sujjóot ñetteel bi sujjóot la boo xam ne sartunti nga yor ci njàpp boo ci yorul njàpp mën ngaa sujjóot boo ko yoree mu gën a baax ñeenteel bi jigéen ju gis baax ak ko gësin yépp mën nañ koo sujjóot ndax du julli juróomeel bi mooy jërul jublu xibla maanaam jublu xibla du obligation pour nga def ko déedéet boo ko defee moo gën waaye foo jublu sujjóot ibn hasbin nee na du rakka du julli du ñaari rakka du du ab sujjóot la kon du lu ñuy sartal yii yépp kon sujjóot yooyu mooy sujjóoti alquran amma saad nag li tax sujjóotuma ci mooy yent biñ ko laajee saad dani saad laysat min azaimil quran bokkul ci sujjóot yi nga xam ne dañoo togg ci nit ki na ko def sujjóot la boo xam ni biñ ko laajee yonent bi dani sajadaha daawuda tawba aw daawud sajadaha daawudu tawba wa nahnu nasjuduha shukran lillah daawud ba mu koy sujjóot da doon tuub mu ne ñun nag bokkuñ ci tuub bi ndax deful lam def kon bu ñu koy sujjóot dañ koy sujjóotee sant suñu borom yonent bi daa jàng ba yegsi ci fii mu bañ a sujjóot wan saxaaba yi ni leen kum neex nga sujjóot kum neex bañ a sujjóot taxaw na ci kaw minbar jàng alquran ci bi muy xutba ba sujjóot ba yegsi mu sujjóot taxaw na ci kaw minbar xutba ba jàng aaye sujjóot bañ a sujjóot moo tax Umar ibn Xattaab tamit noonu la def daa jàng aaya ji ba yegg si ca aaya ja mu wàcc minbar bi sujjóot waaye ca àjjuma ja ca des dakaa jàngaat ba nit ñi ku nekk préparé pour sujjóot mu continuer lan doon def fekk da doon jàngale da doon bëgg wax nit ñi soo bëggee nga sujjóot ko bu la neexee nga bañ ko maanaam ñàkk koo sujjóot nekkut loo xamante ne loolu lay yéenee dara la kon àtte yooyu mat a jàng la moom la ñuy tuddee sujjóodu sujjóodu tilaawa sujjóodu tilaawa mooy sujjóotu jàng alquran kon daawud daal di sujjoot wa xarra raakian mu daal di rot nekk rukoo wa anaab mu daal di dellu ci yàlla subhanahu wa taala bi mu defee loolu moom daawud sunu borom ni fa gafarna lahu daalik ñu daal di koy jéggal lam doon jéggalu lam doon jéggalu moo xam déggee benn nopp la moo xam daa waroon toog ci àttekaay ba àttul mu dugg al alaamatu saadi ànd ak li ma waxoon sànq ci njuumte boobu ci bu fekkee dafa saxal xisas yële doonte fooguma loolu doonte junj na lu ne nit nag waaye wax na fii wax ju am solo mu ne yàlla subhanahu wa taala daf ñoo nëbbu lan la daawul def leeralu ko ne dalaa nettali histoire bi ba mu yegg si ca zanna daawudu annama fatannaahu mu jéggalu yàlla mu ni fatannaahu la dañ koo fitnaan fitna jalan la mu ne bu xam ko amoon njariñ borom téere bi wax la ko allahu akbar wax na wax ju am solo xam lan moo xewoon ba tax daawuda di jéggalu jër sa sonal sa bopp ndax bu amoon njariñ yàlla wax la ko faf yow yemoo ci nag di ko jéem a xam-xam li waaye far nga tuumaal yoon ci yàlla daawuda alayhi salaam ci jigéen ju rafet jaar dara ndox ba mu yàgg mu mu gis benn jigéen buy sangu mu dem di ko yërlu am na ñuy wax loolu de dara ndox ba mu yàgg mu seen aw aw sàkket mu dégg ko paccax paccaxim ndox mu di ko yërlu nekk benn jigéen la buy sangu am na loo xam ne yow mu simple nii ku ko waxal sa baay mu simple sax nga bëgg a xeex waxuma laaj nag ab yonent ci yàlla nga xam ni am na yooyu jërul sax laaj xam-xam maanaam ak yonent dafa dàqonteeg loola loola yonent du ko def alayhi salaatu wasalaam am na yoo xam ni yàlla mooy aar ab yonent ba du ca yegg ci xeet yu safaanu yi nga xamante ni kenn bëgg koo dégg suñu borom mu ni fa gafarna lahu dalik ñu daal di koy jéggal njuumteem boobu waaye wa inna lahu indana moom da yem ma ci jéggal ko waaye ñeel na ko fa fa ñun day la zulfa ak jege mooy jege goo xam ne daf koy jege yàlla subhanahu wa taala jege googu lenn ci borom xam-xam yi wax nañ ni daawud ak baatam bu neex bi sunu borom bu àllaaxira da koy teg caroon aras ni ko daawud mu ni labbayka ya rab mu ni ko daawud jàngalal nit ñi sa téere ba ñu bànneexu ci sa baat bi daawud ni ko sunu borom baat booba nga xam ne ba nga ma faatee nga ko jële woon ci man naka laay jàngalee nit ñi lu neex luñ mën a dégg sunu borom ni ko tey ma delloo la ko mu raw na ma la ko joxe woon daawud di jàng jàng googa mu doon jàng ñi nekk biir àjjana dañ cay jaay loola bokk na ci xisas yi nga xam ne borom xam-xam dañ koy nettali bokk ci israiliyaat yi nga xamante ne lu ko dàq ci sunna yonente bi salaa sallam amut kon am nag jege bal lu koy saxal ci alquran mooy lu koy saxal day day am mooy zulfa ak jege jege gu muy jege sunu borom ah wa xusnu muaab ak la nga xamante ni mooy ak rafetu dellu fa sunu borom rafetu dellu mënta passé doon jàng ni xeer yi jaayu ngay jàng fële waa àjjana yi jaayu ak jege mënta passé ñëw ba sunu borom teg la ci ron aras di la jàngaloo ngay jàng moo tax place yu jege yooye moom la yonent bi doon junj naan ñi maandu kat àllaaxira yàlla daf leen di tegal ay piliyaan yoo xam ni piliyaan yi leer la ko yàlla liggéeyee man de piliyaan buñ liggéeyee leer moo ma dàqal piliyaan buñ liggéeyee or est-ce que xam ngeen loolu piliyaan buñ liggéeyee leer moo gën piliyaan buñ liggéeyee or est-ce que xam ngeen loolu piliyaan buñ liggéeyee leer moo gën piliyaan buñ liggéeyee or moo ko gën fuuf sax ay piliyaan yu ñu liggéeyee leer la leen suñu borom di tegal ñu nekk ci ndeyjooru suñu borom te ñaari weti suñu mbay borom yépp ndeyjoor la loolu nag kéemaan dëgg la nag fii mooy sa wetu ndeyjoor fii mooy sa wetu càmmoñ mu ne wa kilta yadayhi yamin ñaari loxoy suñu borom yépp côté bu nekk rek côté boo dem ndeyjoor lay doon loolu moom rek moo ko am moom suñu borom subhanahu wa taala wa kilta yadayhi yamin maanaam ñaari loxo yépp boo ci dem rek ndeyjoor la mooy foofu mooy ndeyjoor sunu borom subhanahu wa taala mu ni wa inna lahu am na indana fa ñun la zulfa ak jege wa xusnu maab ak rafetu dellu sunu borom mu ni yaa daawud e yow daawud inna nun yàlla jaal naaka ñoo la def xalifatan nga nekk xalifa fil ardi ci kaw suuf si xalifa mooy koo xam ni mooy jiite ñépp xalifa nag am na ñoo xam nañ koy tekkee mu nu ko gaa yi tekkee ti sax ah kii représenté suñu borom wala yaa fi wuutu suñu borom déedéet yaa fi nekkal suñu borom la ñuy wax yaa fi nekkal suñu borom xalifa boo gisee jamono yi sasam ñu naan diw mooy xalifatu rasulillah mooy moo fi nekkal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xalifa mooy koo xam ne yàlla moo ko sam pour mu war a jiite loolu nag ma nga tàmbalee am kon ci jamonoy daawud kon daawud yunus daa defoon bàkkaar ba sunu borom jéggal ko ba pare ni wa arsalnaahu ila miati alfin aw yazidu gis nga fii sunu borom baal daawud ba noppi mu ni wa inna lahu indana la zulfa xusnu maab ba pare ni ko nag inna jaalnaaka xalifatan fi l ard def nañ la nga nekk xalifa ci kaw suuf daa fi nekkal sunu borom ci àtte yi ak jox jubal topp doxal dëgg faxkum na nga àtte bayna naasi ci nit ñi bil xaq ci dëgg wala tustib bul jeng mukk ah wala tattabi al hawa bul topp ay bànneex fa yudillaka bànneex yi daf lay sànq an sabilillahi ba doo jaar ci yoonu sunu borom bi moo tax ibni kathir dafa wax ni aaya jii day ndénkaane bi yàlla la bu yàllay dénk képp ku jiite ak loo mën a jiite nga àtte ci dëgg te fàttali ko àllaaxira te gëm ne yi ngay àtte bis dana ñëw yàlla dana ko àtte waat allahu akbar moo tax am na benn buur bu ñuy wax alwalid ibni abdil malik benn waay bu ñuy wax ibrahim ibni abi zura nee na borom xam-xam bu mag la woon mu ñëw toog ci kanamu walid ibni abdil malik walid ibni abdil malik buur la woon ci buur yi gën a mag ci jamonoom ci lañ def jàkka yonent bi nii ñu ko def nii xolli ko ba mu set daaneel mbaari soxna ya jël armel bi dugal ci biir jàkka ci rafet rafetaal teg ci nee na bi ma ñëwee taxaw ci kanamu walid ibni abdil malik mani walid ibni abdil malik daal di koy laaj ni ko waaw est ce que xalifa ëllëg bu demee yàlla dina ko àtte ba mbugal ko ah xam naa comme buur la te buur xam nga wax ci kanamam daal yóbbu mu ni ko ma wax loo bëgg ma wax mu ni ko waxal dara du la ci fekk maanaam ma wax ji mooy da doon ragal wax benn baat buur tëj ko ci ndax xam ngeen ni buur moom daa gaaw ci loolu maanaam da ngay gis gars yi dañuy ñëw di wax lu neex buur di wax li neex buur comme la Fudayl ibnul Ayaad daan def safaan ba ca Haaruna Rashid di ko wax ba mu xëm bëkk néeg bi naan ko yow yaa ngi xamloo buur mu ni ko yéen a koy rey ma di ko xamloo kon yéen a ma gën a bon waaw yéen a koy rey ma di ko xamloo yéen a ma gën a bon ndax yéen da ngeen koy wax ay wax yu koy jay ba mu xëy dee ngeen rey ko man dama koy xamloo mu gaaw ximli ko kon maa leen gën a baax gis nga de buur danañ am ku koy wax dëgg moo tax Fudayl ibn al-Iyaad Haaruna Rashid daal ni bëkk néegam bi saa soo yëgatee ni sama ngëm yàlla wàcc na rek boo ma yóbbu yóbbu ma ci kii ndax kii mooy dundal sama xol Fudayl ibn al-Iyaad ba mu ne ko nit ki ci lëndëm nga mu ni ko sa nooy nooyi loxo yii na nga fexe ba mu cël ko ci sawar waaw mu ni ko ma wax mu ni ko waxal mu ni ko yàgg daawuda ku gën mu ni ko daawuda ma gën fuuf mu ni ko daawuda la yàlla wax ni ko inna alladina gaa yi nga xam ni yadilluuna dañuy sànq an sabilillahi ci yoonu yàlla bañ a tege ci njub ci ay atte lahum adabun shadid mbugal mu méttee ngi leen di xaar bi maa ci sababu nasu lañ fàtte woon yowmal xisaab bi sab alaxira kon nag xoolal yow foo bokk wax na ko dëgg de aaya ji tar jii di digg mbugal sunu borom mi ngi ko yeme ci kaw daawud te daawud moo la gën mu ne kon yëgal ni yow sa wàll li nga ci bokk moom la benn buur ñëwoon di wax waaju màgg ja imam al-Awzaa'i ah warum fasak paccax paccaxi dugg ci biir jàkka ji xam ngeen aw fasak weye nam mel ak neefare ya waa ji war fas yi paccax paccaxi ba dugg ak moom ci biir jàkka ji ndax yooyu mooy buur kan ngeen yaakaar ne lii ma def mën na cee wax dara ñu ne ko imam al-Awzaa'i Awzaa'i ñëw biñ ko laajee mu ne ko yow Awzaa'i dégg naa dégg naa yaay Awzaa'i mu ne ko nit ñi nee nañ day may Awzaa'i kay tax a jàpp mar sa jàmburam mu laaj koy laajam ba laaj yegg ca deret yi nuy tuur loo ci xam xam nga dawla abbasiya umara yi ci nekkoon yépp seen askan mi ngi bàyyi ko ci abdullah ibn abbas moo tax ñu dawla al abbasiya mu ne ko déggee naa ci sa maam abdullah ibn abbas mu nekk li jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni benn bakkan boo tuur mi ngi mel ni àddina bi yépp nga rey wasala kon kooku ragal lu woon tiitu du woon moo tax am na borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñoom daawul tiit wax dëgg borom xam-xam yonent yàlla bi nee na kaddu dëgg gi gën a neex yàlla mooy kaddu dëgg koo yëkkati jëme ko ci buur bu jeng waaye nag na ànd ak i teggin nag suñu borom ni ñi nga xam ne dañuy sànq wàcc yoon suñu borom yi lagum adabun shadid dinañ am mbugal mu metti bima nasu ci sabab si lañ fàtte woon yowmal xisaab bisab alaxira yal na yàlla boole ñu musul ci ñoom suñu borom mu ni wa maa xalaq naa sàkkuñu assamaa asamaan si wal arda ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci diggante bi baatilan ci neen maanaam jékki-jékki rek am jot kere asamaan kere suuf kere li ci diggante bi déedéet suñu borom mu ni loolu taxul de suñu borom mu ni law aradna an nattaxida lahwan lattaxadnaahu min ladunna in kunna faailin bu doon fa donc ci asamaan sa la ñuy yem defee ko fa waaye yàlla mu ne dëgg moo tax wa maa xalaq naa ma illa bil xaq wa maa xalaq naa sàkkuñu asama asamaan wala arda ak suuf wa maa baynahuma ak li ci diggante bi baatilan ci neen ay caaxaan taxul yàlla sàkk fo taxul suñu borom sàkk ko waaye suñu borom mu ni dalika loolu day zannu alladina kafaru mooy njortu gaa yi nga xam ne dañoo weddi suñu borom fa waylun mu ni xur ci sawara ñeel na lilladina gaa ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi suñu borom min annaari ci sawara maanaam fa waylun min annaar aw xur ci sawara lilladina kafaru ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi woon suñu borom kon mbokk yi aaya jii dafay wane ni borom bi subhanahu wa taala kat asamaan ak suuf maanaam sàkk ko ngir ay caaxaan waaye daf koo sàkk ngir dëgg ngir nan ko jaam wàcc gii mu ñu fi wàcc di ñu jox ngelawam ne ñu koy noppi wërsëgam yi ñu koy lekk wéram gi ñu ciy ballawtiku fanam yi ñu ciy dund bis dana ñëw dana tukkal àddina bi laaj ñu loola mu ñu joxoon ndax sant nañ ko ca wala déet ndax jaabu nañ koy wala déet suñu borom ni sàkkuñu asamaan ak suuf wa ma baynahuma ak li ci diggante bi baatilan ngir ak neen dalika loolu dannu alladina kafaru mooy njortab gaa yi weddi fa waylun xur ci safara lilladina kafaru wala fa waylun mbugal lilladina kafaru ñenn ñi nga xam ne ñoo weddi suñu borom mi na naari ci sawara ah da ngeen yaakaar dañuy ñëw ci àddina rek ñu bàyyi ñiy saay saay saay saay ñiy noos noos ñiy jaamu yàlla jaamu yàlla ñu dem ba àllaaxira yàlla mu ne ayoo na xëy mbaay yéen ñëpp yéen a yem comme ni ko la waxee ndax naa ne déedéet déedéet borom bi soo tala mu ni am wala ndax najaalu alladina amanu dañuy jël ñi gëm yàlla wa amilu saalihaat tey def jëf ju baax ñu def leen kal mufsidina fil ard comme saay-saay si nekkoon ci kaw suuf mooy sunu borom ñu dem ba àllaaxira ñu mel noonu am wala boog najaalul muttaqin dañuy jël ñi ragaloon yàlla def leen kal fujjaar comme saay-saay si ñu dem ba àllaaxira daal di tolloo déedéet am na jeneen aaya ju ni mel sunu borom di ko wax defe naa mi ngi ci suuf sajda ah sunu borom di wax ni ndax yàlla dana bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñooy saay-saay si yemale leen ak ñi nga xamante nii ñoom ñooy ñi baaxoon déedéet ibni kathir boo demee ci tafsir dafa wax ju am solo foofu mu ni sunu borom dafa dogal ni fii ci àddina da ngay gis benn waay boo xam ni dafa mën a jaamu yàlla di góorgóorlu ba noppi dund ci ak ñàkk ba xëy dee sonn lool nga gis waa joo xam ni mooy katu yàlla la dund ci ak bànneex ba xëy jaddee te ànd ak gëm nga ni yàlla du def lii kon moo lay wane ni am na lu ne ca ginnaaw def-def yooyu loola nga jonkan àllaaxira dañu xaar allahu akbar loola mu nga jonkan àllaaxira dañu xaar mooy yàlla dana la bàyyi nga mel ni nga bëgg a mel fii waaye boo dajee moom la mu àtte la suñu baramu ni ndax da ngeen a yaakaar damay def ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax comme ñiy yàq ci kaw suuf ma yemale leen am wala boog najaalul muttaqina kal fujjaar ma jël ñu ragal yàlla ñu def leen ñu mel ni saay saay si sunu borom mu ni déedéet loolu de moom du ma ko def sunu borom mu ni kitaabun téere ngi boo xam ni muy alquran comme ni ma leen ko waxee woon démb ci suurtu Saad ci tàmbali bi laaye ji nag mbokk yi sunu borom mi ngi ciy bàkk ak a tagg alquran mbokk yi alquran téere bu màgg la téere bu kawe la téere boo xam ne ñun ñi ko am xamuñ valeur li ñu am xamuñ valeur li ñu am moo tax ndeysaan ak a bariwaan ci xeet yu njëkk yi ñoo xam ne buñ leen masaan a jàngal xeet wi ak seeni téere dañuy jooy ndax bëgg cee bokk Muusaa ci jiitu alayhi salaam téere boo xam ne arab boo ci jàng am fukki tiyaaba su weeru koor ñëwee comme tey ñu triplé ko téere boo xam ne kullu wasfin hamid wasafahu rabb subhanahu wa taala daka alkitab bal huwa qur'anun majid téere bu tedd ngi fii lawxin mahfuz ci àlluwa ji ñu wattu innahu la qur'anun karim téere bu tedd la alquran ju tedd la fi kitabin maknun wa innahu moom téere bi kat la tanzilu rabbil alamin mi nga wàcce fa sunu borom nazala bihi ruuxul amin malaaka mi yàlla gën a wóolu ci malaaka yi muy jibril moom la sunu borom sant mu wàcce ko ala qalbika ndax liñ gën a wóolu mooy sa xol bi yow yonent bi allahu akbar bi lisaanin arabiyin mubin ci làkku arab bu leer alquran bu doon bu yekk la ñu ni yekk bi sunu borom wóoluwu ci benn bool buñ koy yekk bu dul xol ku gëm yàlla bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilm aay yu leer yoo xam ne sunu borom da koo wàcce ci dund ñi sàkk ñi sàkku xam-xam moo tax alquran ku ko xam borom xam-xam la gis na mokkal alquran dara raxay moom tax ñu naan xam-xam de alquran junn mokkal xam li muy tekki moo tax ñu naan alquran junn mokkal alquran ci boppam nit ki bu ko xamee xam la muy tekki borom xam-xam la ayatum bayinat fi suduri alladina utul ilm façon tajjin wu ne ah borom bi tagg na ko subhanahu wa taala ci téeréem bi kon alquran jooju mbokk yi dañ ko war a xam di ko jàng di ko nafar di ko settantam allahu akbar nga dem ba laaxira ñu rappel saw tur di la kaay yow foo tolloon ci alquran nga ne man de ay quelque saar rek laa jotoon a mokkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nañu tabaxal ay quelques étages rek nga yéeg foofu yow toog foofu yow loo mokkaloon ci alquran ñu gis ne am mayata ba naas de mokkal na ñu xool étage yi tolloog aaya bu nekk aaya boo jàng benn étage la xanaa di nga kawee am mayata ba naas ku ko mokkal di nga kawee lool benn waay ñëw boo xam ne téere bi yépp la mokkal moom ñu ne ko yow jàngal nga yéeg yow daal fu sa kër yam yaa ko yam fu sa kër yam yaa ko fa yamale gis nga waa ji bu tàng tàmbalee muy jàng suratul baqara aaya ju mu jàng benn étage aaya ju mu jàng beneen tege ca kawam aaya ju mu jàng beneen tege ca kawam gis nga bu yàggee say étage boo taxawee ca kaw xaw tuuti ko doo seen ñi ci suuf xam nga ne léegi étage dina kawe kawe boo xam ne boo tiimee tiim nit ñi da nga defee ay sànqala nga tiim ndax kawe waaj ma ne da nga kawe yow ba da ngay séen doo gis ñi ci suuf ndax kawe koy kawe iqra warta jàngal nga yéeg warattil kama turattilu fi dunia taril foo yam yaa fa yamale sa bopp loolu mbokk yi war naa tax ñu sonnat ci téere bi di ko jàng dinañ àtte nit ba jagat jagatee ko moom di yóbbu sawara alquran baare ko dox digganteem ak sawara allahu akbar yent yàlla mi nee ne alquran ni yow sunu borom ah kii moom di nga waxaat ci mbiram ndax kii moom xaw ma lu mu def ban koy tàbbal sawara waaye daana ma jàng guddi di ma jàng bëccëg kii du ma ko seetaan mukk ñu koy tàmbal sawar allahu akbar yent yàlla bi ne alquran daal di koy tiim wa kadalika koor tamit dina def loolu koor ak alquran ñooy def loolu ñu tourné la ngir sababu alquran ji nga fonkoon di ko jàng ak di ko jàng bàyyi ak yaay dinañ leen jël teg leen ci ay piliyaani or solal leen ay mbaxanay or ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy yëg ni lii ñu ñu solal lii coowu ñu laaj suñu borom ana jën jëf mooy joo xam ni moo tax ñu defal mu lii suñu borom mu ni ci sababu li ngeen doon sonn ci seeni njaboot leen jàngaloo alquran moo tax yàlla defal leen lii allahu akbar est-ce que lii lii bisaara mbokk yi ab julit dana ko dégg lu dul bu noppee dana def som yu sommiru an saab wakasu ba dëgër ngir man lu ma man ci téere bi danaa ko def su ma paree ci sama njaboot da ngaa nekk mag moo la teree jàng yéen sa salam ñi mu doon jàngal ñoo ko mag fuuf à l'âge de 40 ans la alquran wàcc ci moom mu continué jàngale Aboubacar mi ngeen 38 ans 2 ans la ko yonente bu magee woon am na ñoo xam ne ñoo mag yonente bi fuuf ndax salmaanul farisi maami yonente bi lañ maaseel sallallahu alayhi wa sallam salmaanul farisi moo magoon yonente bi xasan ibnu saabit kadalika ak ak kële xakim ibnu xusaam kadalika ñoo xam ne dund nañ ay ginnaaw bi ay téeméeri at ak nangam koo xam ne islam day ñëw fekk mu am téeméeri at yu jege xam ngeen ni papay Aboubacar màggat la woon koo xam ne mënta woon sax jug dem te da doon jàngi ba yonent bi naan Aboubacar tey nga bàyyi kii ñu ñëw fekk si ko Aboubacar ni déedéet yow yaa gën a yey ñu fekk si la moom na ñëwal na ñëw moom sama bàyyi na ñëw fekk si la ca la yonent bi waxoon daa bee jaaw watal leen ko kawar gi wala ngeen soppi ko fuddan ko ngeen bañ koo ñuulal allahu akbar kon nit ki lu mu magal magal magal magal magal am nga sa wàll ci téere bi su ma rama ni kitaabun téere ngi boo xam ni ah anzalnaahu ilayka dañ koo wàcce ci yow li yaddabbaru ngir ñu settantal aayaat yi aaya yi wali yatadakkara ngir mu mën a waaru ulul albaabi borom xel ya allahu akbar téere ngi boo xam ni yàlla wàccewu ko pour ñu koy barkeeloo déedéet yàlla wàccewu ko pour ñu koy meubler ci ay armoire ak di ko def ci ay kanami oto ginnaaw oto déedéet yàlla wàccewu ko pour nit ki di ko wàccee maanaam ñun nañ leen wàcce kaamil déedéet yàlla wàccewu ko pour ñu koy bind di ko takk ay téere déedéet yàlla wàccewu ko pour ñu koy jàngal ñi faatu déedéet yàlla wàccewu ko pour ñu koy jàng di tarax rax yi dem rek déedéet waaye daf koo wàcce pour ñu koy jàng di ko settantal wala yatadakkara ngir mu mën a waaru ulul alba borom xel yi ñaata yoon booy déglu tafsir mbir yi ngay dégg sa xol day gën a dundaat waxoon naa leen ni leen ni gàncax gi ndox mi di ko dundalee noonu la alquran di suuxatee sa xol téere la boo xam ne taxsha'irru minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum ku ragal yàlla dëgg buñ ko jàngaleel xol xol bi dafay fat-fati summa talinu juluduhum wa qulubi ila dikrillah téere la boo xam ni sunu borom ni boo ko fàttalee ki gëm yàlla zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun da leen dolli ngëm te dañuy wàkkili suñu borom est ce que xam nga ni saxaaba yi dañ daan toog ba mu yàgg ñu woo kenn ni ko kaay nga toog jàng alquran ñu déglu taalaw loolu mooy taalaw nu'min saa kaay la ñu yokk suñu ngëm yàlla mooy benn waay boo xam yàlla man loona ko alquran lool mu toog ñun ñu toog jàngaluñu day toog di jàng rek muy dégg nga xam ne tadabbur bi ca lay am seetantal bi ca lay am waaru bi yonent bi bu demee bana Abdullah bin Mas'ud kaay jàng alquran ma déglu Abdullah bin Mas'ud ni ko mukk xalaatuma ko te yàlla wàcce ko ci yow du ma ko def jàngal yow yonent bi ni ko dama kaa bëgg a déggee ci geneen làmmiñ gu dul saa wos mu dooga na la gis nga kon mbokk yi alquran dañ ko war di jàng di ko seetlu al allaamatu saadi rahimahullah boo delloo ci tafsir dafa wax ci aay ji ak wax ju am solo mu ni kitaabun anzalnaahu ilayk mu ni fiihi xayrun kathir wa ilmun ghazir fiihi kullu hudan min dalalatin wa shaqaa'un min daa ونور يستضاء به في الظلمات وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلفون وفيه من الأدلة القطعية على كل المطلوب على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله الله أكبر ñii yàlla daf leen a mayoon ak dégg-dégg na ci alquran mu ne téere la boo xam ne yàllaa ko wàcc ma barkeen mu ne ahon kay mboolem looy sént ci yiw mi ngi ci biir téere xam-xam ca la yem maanaam alquran fa la xam-xam yem maa farratna fil kitab min shay lu waay soxla mi ngi ci téere bi alimahu man alima wa jahilahu man jahila nee na leer a ngi ci boo xam ne dañ koy niitoo nee na njuba ngi ci boo xam ne daf lay génn ci lëndëm yóbbu la ci leer saafara jàngoro yu biir ak jàngoro yu biti mi ngi ci téere bi mboolem atte boo xam da nga koy soxla sa wàllu dund mi ngi ci biir téere bi nee na lii moo waral nag téere bi nekk téere boo xam ni moo gën a mat te gën a jot ci téere yi mës a fëgg buntam àdduna yépp ba ko yàlla sàkkee ba tey gis nga de musaddiqan lima bayna yaday dafay dëggal téere yi ko jiitu woon mu teg ci li yadabbaru aayaat yi ngir ñu settantal aaya yi mu ni xerante gi yàlla def ci téere bi ay sew-sew ay secret ay waaru yoo xam ni képp ku toog di jàng téere bi concentré war suñu borom baaxe la moo tax mu ne li yadabbaru ayati ngir ñu koy settantal te xam ngeen ci biir tafsir bi xam ngeen da ngay dem bam yàgg nga gis ay sew-sew yoo xam ni kéemaani suñu borom la loolu nag settantal moo koy may nii am na benn borom xam-xam bu mag dafa taalif benn téere tuddee ko mafatixu tadabburil quran caabi yi nga xam ni téere su ndaw la su as téere as téere su ndaw waaye boo ca demee daanaka ay clé lay jox ay caabi yoo xam ne boo ko ubbee da nga xam ni dëgg dëgg alxuraan boo ko seetloo gis ci kiimaani suñu borom loola nag lay gën a dolli ngëm waaye day gën a suuxat sa xol daf lay gën a jegal sa borom kon nu ngi ñaan suñu borom bi asmail xusna wa sifaatihi al-ula yàlla na yàlla boolañ su ñooñee nga xam ni yatadabbaruna ayaati wa yatadakkaruun ndax dañuy bokk ci ulul albaab yàlla yàlla boolañ ci ñi nga xam ni lépp loo xam ni def nañ ko ci coono ci alquran ci di ko jàngat di ko seetantal yàlla fay leen ko te fulal leen ko yal na yàlla boolañ ci ñi nga xam ne alquran daf leen di ramm yal na yàlla boolañ ci ñi nga xam ne dañuy am cër ci alquran wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain